boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV dangeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo alhamdulil haqqil mubin man ma jami'i ni'ami الكتاب المستفيد مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم هذا الورى للمؤمنين أذكر زرعة المجيد شكرا يلافي المجيد مسلما على وهيم لي وكلمي أجابني رب السماء Touba quincaillerie général ku ne dégg na ko ci mim réew Sénégal ñëpp xàmmee ko ci jaay matériel quincaillerie de grande qualité indil na leen ay poignées yu dëgër te rafet ci design boo bëgg qualité laiton inox wala alliage ay canaux ak série de sécurité ci marque Touba quincaillerie général vachette ak bricard si qualité yu mucc ayib te nangoo yàgg caabi du càng ci biir mukk ay poumelle de porte ak charnier Touba quincaillerie général képp kuy entrepreneur wala ngay ouvrier mbaa sax ngay tabax ak bëgg ay finition de qualité loo soxla ci menuiserie sanitaire plomberie peinture outillage matériel de peinture carrelage salon accessoire de maison seet si ñu di nga am ca Touba Quincaillerie Générale li nga bëgg ci wàllu qualité ba noppi méngoo ak njëg yu xiwale ñun waa Touba Quincaillerie Générale fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie Générale Kër Damel loo numéro 3 ci ginnaaw stade Léopold Sédar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 benn ci ponk yi nga xam ne moom la jullit bi boole def benn la ci ponk yi nga xam ne boo leen boolee ñu wooye la ab jullit soo ca bàyyee benn jël moroom ja jullit yi nag sañ nañoo maandu ci yow mooy ponk bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bis bu ruux ak nit ki waddee ba nit ñi ñàkk ko moom la yàlla jëkk a seet ci ay biram loolu nag bokk yi doonatul ay caaxaan doonatul ay kaf kenn ku ne si ñun gis na ba tàyyi kuñ tëral ne dafa faatu loolu kenn warantee loolu ki gëm yàlla ki gëmul yàlla ñépp gëm nañ ne dee mi ngi ñëw te day am la yàlla jëkk seet nag gannaaw faatu jullit bi ba jullit bi dund lu war a fonk la ndax yonent bi nee na suñ ko seetee mu jag lépp ay jag ndax yeneen yi jëralu leen seet bokk yi ponk boobu yent yi mu bokkal ñoom ñuy juróom yenu lislaam bu ca waay di def daf koy boole ak moom euh, ku ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah day daal taxaw fi kanamam ne ko ay ca bokk tàmbali léegi bokk yi kuy aj makka da koy boole ak ponk boobu kuy woor daf koy boole ponk boobu kuy liggéey fas yéene bu amee nisaab di génn asaka ngir matal ponk yépp daf koy boole ak ponk boobu mën na koo tudd mën naa ko bañ a tudd ñëpp ko xam muy julli julli moomu suñu boroom nee na ci alxuraan nangeen ko saxal ñu ne ko xanaa weer wu nekk walla bis bu walla at mu jot ñi woor ak aj ak asaka mu ne déedéet bis bis bu ñëw daf caa am ay waxtu yoo xam ne moo ko moom lu waay di def bu jotee na ko bàyyi defi ko ak lu mën a nekk aqimu salaata inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta gannaaw nag bis bi muy gudd ak bëccëg dana ci ñëw nangam yoon yonent bi sallallahu alayhi am njàngaleem leer na foofu nañ lu nit kiy def giirub dundam bis bu set ci guddi gi ak bëccëg bi def ko ci ba mu mat juróomi yoon su ko jékkuwut na mu ko war a jekkoo yeneen yi des yay ñëw par at taxut muy wax julli moomu nag am na ca yaar yu jafe lool yoo xam ne fa muy fekk nit ki mooy waral mu mel ne lu jafe tey dañu cay genn ga muy julli fajar bokk yi julli fajar am na ñooñ tayal moo leen ko te def ca waxtoom am na ñooñ nelaw moo leen koy def ca waxtoom ngir daw seytaane ak ay jax-jaxalam jax-jax jax-jaxi seytaane moo koy def ca lay bokk ca lay bokk ba tax wàññi nag wàtt di nelaw du yeewu ba julli fajar weesu wala ñuy nodd mu dégg ko ne pat ñoddiwaat lam sàngoo woon feddi liwaat mbankaayam su fekkee kuy nelaw di banque la wala mu fedd mu feddi liwaat wet gëm tëddee woon wëlbati ku tëddee geneen wet naan waxtu wi gudd na walla des na tuuti te bu dee ci dëkk yu mag yi dëkk bi nu nekk bokk ci nodd gi yëgle ne waxtu wi jot na ak fa ñuy jullee dana mat waxtu ak dara dinañ dëkk def lu ñuy wax nodd gu jëkk ba mu mat waxtu ñu soog ko nodd nodd ki nga xam ne ca la ñuy waxee ne julli jot na julli googu sax dañ ci boole ne bàyyi leen li ngeen def te julli ci li lu ngeen mën a nekk julli jee ko gën asalaatu xayrum min an naw moo tax jullit bi saa bu waxtu jotee ba mu dégg nodd war naa wax auzu billahi min sheytaani rajim ay yoon balaa koo seytaanee gàllankoor ci muy dem di julli ci léeg-léeg mu ne ko àggaleel li ngay def léeg-léeg mu ne ko gannaaw diw julleegu tey ngaa xaar ba muy julli te xamu diw dina julli wala du julli léeg-léeg mu ne ko ah waxtu bi da gudd na léeg-léeg mu ne ko kii daa teel a nodd rek waaye nodd jotagul te mbokk yi waxtu yi waxtu yi ñuy nodd saa su ne mën nay sopp moo tax am na ay joxañ yu waroom xam-xam yi joxañ yoo xam ne nee nañ ku koy def yàlla mën na koo musal ci ca sonne ku sonn yëpp wala mu jàpp ca benn sen sonn ca yàlla mën na ko musal ci biddanti bañ a julli suba fàttali nañ ko fi ay yoon bokk yi xool leen kii nodd na dugg jëkk fa muy jógee léeg xool leen kii salaatu fa muy jóge léeg-léeg xoolal jiite di fa ñuy jógee léeg-léeg xool leen kay ubbi jumaa jama nga xam ne noddu jiite wut waaye day ubbi ji rek ubbil ñi nga xam ne ñooy noddu ak a jiite loolu kum dawut aw yaramam yaramam du daw mu ku ci ëpp di wax ca kaw ñëpp ñëpp ne tekk muy wax ca kaw te am nañu seenum néeg bu mbooloo mi raxee sax dutuñu wax ñoom far dañuy wax moom mu ŋalliku ca kaw waaye du ko rëccu tam joxoñ bokk na ca di teel a tëdd di teel a tëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg daana néeg ba guddi gi boo ko xaajee ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba bu buy bëgg a jeex mu soog a julli gee te day bañ ku nelaw diggante fi bi sowee ak ba ba ñuy julli gee maanaam mooy julli timis toog di nekk gee lam ca jublu woon moo ko xam am nañu ko taawil ne mooy day bëgg boo sëlmalee gee rek gëmmentu dem tëdd ndax nga teel a yàqu waaye li xew mooy julli gee googu dañuy toog ci xadaraat yi xadara lañ ko tudde léegi foo xam ne duñ fa waxtaane yàlla duñ fa waxtaane yonent bi duñ fa waxtaane sëriñ bi lañ fay waxtaane mooy xew-xewi jamono ji rek boole ko yu tàng ya di di ñëw yu seddee di ñëw ndaw wéri di metti ba kenn desitu fa daanaka ñenn ñi nelaw nañ fañ toogoon ñenn ñi ne maa ngi tëri ñenn ñi mu soog a jóg kooku faaw mu biddanti kon teel a tëdd benn la ci tomb yi nga xam ne dana musal nit ci bañ a julli suba ci waxtoom moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daana bañ lool waxtu woo mu julleegee ba noppi ku fa toog de waxati daa bëgg ku noppi rek dama fatu ci am na ñooñu nag jàmbaar lañ dañuy nelaw dañu naan baasin yàlla ñu ne gàmm newaat fojjat di julli di sëlmal jëmale julli suba wala fajar yàlla leen yàlla fay am na ci ñooñ moom duñ nelaw xawma duñ yeewu li fee dégguñu na dugg jëkk daal jóg gaaw am na ñooñu it salaatoo leen di yee waaye duñ nelawaat faw bu ñu julli dooru tëddal buñ dee tëdd ku ci nekk jàmbaar la waaye ki nga xam ne daal moom war naa seetaat boppam mooy koo xam ne dana watt watt moom boo ko déggee mooy tëdde ndëfe naay kooku moom yëgatul li xew taa xam sax mën naa daanu ci kawam du ko yëg du dégg nodd du dégg salaatu te lekk ko teg mooy topp xadaraat yi di barkeeru di tibb di sax di naan yu tàng ak yu set ñaareel ba mooy fexe ba tuxale ci woroom xam-xam julli fajar la ca nekk ci ab yoon julli moom daawuñ ci digge dara ndax day war a ci diggante jàmm ak boromam wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun waaye nag da tax ñu tànn ci naan dana ci am nangam dana ci am nangam mooy waxtu wa muy bàyyi lam doon def muy nelaw dem julli ci ko loolu it lu ma tax xam lu ji ba xam yool yee ca nekk lu mu doon su xamee yool yee ca nekk nag ba noppi mu ne ko fa ñukk dem di ca jaamu yàlla te yàlla rek tax ñetteel ba mooy di ànd ak ñuy xadara xadara bu am njariñ xadara boo xam ne dañ fay fitante ay masala xadara boo xam ne dañ fay waxtaane ayat alxuraan yi sababu nuzul yi ak ci kan la wàccoon lu tax mu wàcc ak ci kan ak lu xewoon ak aayaat yi ba nag ci niroo ak moroom loola moo daan am ci daa e, ëtti daara ya bu jëkk bindal baat sàngam mu bind ko mu ne ko maas ko mu ne ko daan naa la daan nga baat sàngam ñaata ñaata yoon la ñëw ci alxuraan benn bu ci ne fu mu nekk gumaara lay nekk mën naa bañ a dugg sax ci tafasil waaye daal dañ ko daan fitante ba ku nekk óbbali wóbbali bokk wéeru fa mu wéeru ndax du bëgg a dem bàyyi fa jotaay ba ndax neex bu neex ci moom ndax di dund ak moom ku xam na ni waxaale leen ci ñi nga xam ne dinaan wàtt di nelaw ba salaatu xëy asalaatu xëy mi weesu ba jant bi ne dàng nga xam ne tàngooru jant bi tàngooru jant bi nag ku moytuwul du ko yee bu ëllëgee dana na mos aw tàngoor woo xam ne mooy gën a tàng jant bi fuuf kon fexe ba di ànd ak ñoo xam ne léeg leen ñu waxtaane kenn ku ci nekk waxtu wa mu yeew ci teel su fa dee toog toogay léegi tey mu xeemeem ko ni ñoom am na ñooñ dañ naan ñoom fu ñeenti waxtu jotee ñuy jóg am ñoo xam dinaan ñetti waxtu genn walla am ñoo xam dinaan juróomi waxtu suy toog seen jotaay nag léegi tey mu tàggoo ak biddanti ba ñu julli suba waaye it Euh, fexe ba bu amee rendez la koy yee ba muy teel a jug waaye waaye mu la ca waxtu julli waxtu nodd am na ñoo xam ne dañuy wuti visa jaral na leen dem fanaane fa ndax teel a déposé xamuñ danañ am xamuñ duñ am waaye la ko jaroon mooy teel a jatu di nekk waxtu wi ndax waxtu yooyu moom ku ko nekk xam na lam say am lam say am mooy jëfe ndigalul yàlla te yàlla du neenal kenn ñii wax naan barab sàngam boo fa déposé suñ la moytu dañuy yóbbaale sa xaalis danañ ko jaral rek ndax danañ ci bind ne kuñ joxutit la ngay joxe woon da koy ñàkk mu jaral leen ko fanaan fa te foofa fi ñu julli suba du fa nekk ñaar waaye faale wuñ julli suba faale wuñ julli gee dañuy dem ndax teela gaaw te teel a déposé loolu nag bokk yi ci ab jullit ku koy def war naa mën a baal xel diir bu gàtt boo xam ne ca lay dem jàpp ñëw julli ñaar rakkay fajar dem ca jàkka julli fa ñaar rakkay suba su fekkee jàkk gi sori na ba ñi mu wu dem ku mën a yee mu yee la su mu yee kenn moom mu fexe ba loola bañ koo waa bañ koo faat moom ndax kat euh, kenn ku nekk bu tibbee di sax ci gémmiñam lay def mën nga tibbal ni sax def ci gémmiñam waaye bu bu wanaasu jotee nag wanaasu kon waxtu wu jafe la waaye bokk yi bi ma tudd bi may mujj bi may mujje mooy bi ma jëkke woon léegi rek dana tax nit di gëm nit di biddanti bokk na ci yi tax nit du biddanti mooy fexe ba la muy lekk ci guddi gi bañ a bari ba ëpp ndax kat bu biir ne dell bët moom daal di fas yéene gëm moom di reere lu woyof ba noppi di ca lekk lu yam lekk ba suur te bañ a lekk ba regg regg moom wóbbali wéeri wet ga ndax dana tay la jóg sa xool topp day yoon kon kenn ku nekk na fexe ba tàmm julli jullug suma bokk na ca yekk koy may mu tàmm ko nag mooy fu tisbar jotee rek bu ñu noddee rek tu am jàmbatu julliwut fu takkusaan jotee duutu am jàmbatu julliwut fu timis jotee duutu am jàmbatu julliwut fu gee jotee duutu am jàmbatu julliwut su boobaa yent yii su demee ba jaxasoog deretam ba jaxasoog moom saa bu diggeeg nodd kenn du ko yee moo naan tërët wala ba mu jëfandikoo yi bees yi xew léegi juñ junj naa ko léegi mooy néew nañu yorut téléphone yi ñu ŋàbb dem fu la soog di wax di wuyu di woote boo ci gis am na montar montar boobee ci biir téléphone ba am na fu ñu naan boo bëggee yeew wax sàngam boo ko ca defee mu yee la sooy nelaw ak booy yeewoo ci yam soo nelawee dana ko dana sone soo nelawut dana sone loolu nag mën na cee dégg ne dogalu yàlla bi bii dab nit di ko faat muy faatu waxtu bu jotee day dikk montre bi nga réglé mu di la yee quatre heures du matin ñeenti waxtu ci suba fajar soo yeewu ak soo yeewuut la yamale saa bu ñeenti waxtu jotee moom dana sone moom moo dogal yàlla noppi na ca kon boog nañ taxaw ci ndigali suñu borom la te xaar dogal ba tey ñaan saa buy ñëw fekk ñu ci la ko la ko gënal li tax bokk yi julli mata sonne am na sababu saahir léeg-léeg nit ki yor ay tànkam yor ay yoxoom ba yàgg dutu ko yor te fekk mi ngi dund kon jamono ba muy mën a jàpp njàpp mu set nga xam ne ay yoxo ca la bokk na fexe ba jëfe ca cër yooyee njàpp moomee ak le ak taxawal ak rukon ak sujud ak jug ay yoxo da cay bokk waaye jamono bi ñu am yaa ñaari tànkamit it na fexe ba tànk yooyee mu tàmm ca jàpp tàmm ca taxaw di julli ba mën a rukoo ba mën a sukk ba mën a siggiwaat ndax mën naa dab nit ñu dagg ab tànkam wala ñaari tànkam su boobaa su ko sa néewutoon day gis ni gaa yi def mu bëgg def ci dutu ko man la weesu weesu na jamono bi muy am ay gët mën a xool waxtu ba xam fajar jot nam jotut mën a xool ba xam tekkusaan tusubaar ba waxtu yi ñuy seet yépp di jot di ko xool ci montar di gis di ko xool ci téléphone di gis na fexe ba gëtam yooyu mu tàmmal ci xool waxtu tàmmal ko xool alquran tàmmal ko xool eh, turi yàlla yi ak salawaatu ala nabi su boobaa su demee ba amam ndog it ma du bari dana fekk mokkat lu bari te fekk gisoon da ko doon xool waaye su demee ba nga xam ne it fii bokk ci rukkoo yépp daa bañ wóom ya bañ na ndigg la bañ na penk ya bañ mënut a bank mënut a tàllalit jamono bi mu koy mën na gaaw fexe ba sonne ndigalu suñu borom bala moo weesu yàlla na yàlla dé defal dégg topp te musul seytaane ak jax-jaxalam te boole ñu bañ nangoo julli saa su nañu fàttali ko mag laajoon na kenn ku doon sàkku xam-xam ci majaalis yi nekk Tuba laaj ko fànn yam yamay jàng mu wax ko ne fiq moom jekku na ko lool mu ne ko fiq boo ci gën a jekku mu ne ko julli mu ne ko waxal ma dégg di ko laaj muy tontu di ko laaj muy tontu li may wax rek ci xadaraat yi nga xam ne daa am jariñ kooka lam koy mag mag sëñ Fallu Mbakke la woon la muy mag mag kooka nga xam ne magantiwut ak waajuram sax téewul mu jël waxtoom ci xam ba xam kii mi ngi xam li muy jàng waaw wala déet xadara ba daa mujj soppi bu jëm ci loola ko waaw xam nga de waaye xam julli nag nangoo jullee ko gën yaar yooyu ku leen boole dana lare lare nag wolof yi nit ku ñuul nee na du mën a jàmm njanaaw yaa na toogee rek yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiina amiin bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo alhamdulillahil mubiin man kawnu li maa jamii ni'amiin ما كونه ليبي على الكتاب المستفيد مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مسليا على كريم قال الورى للمؤمنين أذكر سرعة المجيد زجاج الآبي المزيد مسلما على وهي بك الكلي وكلمي أجابني رب السماء Touba quincaillerie générale ku ne dégg na ko ci mim réew Sénégal ñëpp xàmmee ko ci jaay matériel quincaillerie de grande qualité indil na leen ay poignées yu dëgër te rafet design boo bëgg qualité laiton inox wala alliage ay canaux ak série de sécurité ci marque Touba quincaillerie général vachette ak bricard si qualité yu mucc ayib te nangoo yàgg. caabi du càng ci biir mukk ay poubelle de porte ak charnier Touba Quincaillerie Générale képp kuy entrepreneur wala ngay ouvrier mbaa sax ngay tabax ak bëgg ay finition de qualité loo soxla ci menuiserie sanitaire plomberie peinture outillage matériel de peinture carrelage salon accessoire de maison seet si ñu di nga am ca Touba Quincaillerie général li nga bëgg ci wàllu qualité ba noppi méngoo ak njëg yu xiwale ñun waa Touba Quincaillerie Générale fonk nañu suñu kàddu jàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie Générale Kër Damel lot numéro 3 ci ginnaaw stade Léopold Sédar Senghor 33 879 28 28 33 879 28 28